ngeen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte àndaat ci xam ne dañu koy amal jamono ji nag jëmale ko ci lu jëm ci waajtaayu màggal gi ak euh, tolluwaay bi tey ji nag ñu am mbégte lool dalal euh, Serigne Mouride Mbaye euh, de bokk ci ñi nga xam ne moom la ñu yor wàllu ko jokkaloo gi ci kuréel gi ñuy wax Safinatul Aman bokk ci kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu ko aar dëkk bi ci wàllu ko kaaraange xam naa dana koy bàyyi rek mu nuyoo laata ñuy dugg ci laaj yeeg tontu yi nga xam ne fas yéene nañ ko amal amal euh, sëriñ ñu ngi lay nuyu ma bàyyi ngay nuyoog ñi lay topp ci 24actu.com. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di ñaanal sëñ Modou Lo Ngab mi nga xamante ne mooy jawrini daayira bii di Safinatu Aman te ko fi mas a nekkal sëñ Touba di xale bi rek dénk ko lépp lu jëm ci wàllu war ma tuuba sëriñ Murit ci nuyoo bu am solo boobu bu ñu bëggoon nga dikkalaat ñu ci Safinatul Amaan ban taxawaay la am ci dëkk bu sell bi lan nga nuy wax. Safinatul Amaan moom taxawaay bi mu am ci dëkk bu sell bi di Touba mooy ku xam na ne euh, sëñ Touba moom kenn mënu koo féete fépp fu nekk nga fu nekk nga féete ko fa ci liggéeyal ko waaye tamit euh, dëkk bu sell bi di Touba sëriñ bi bëgg na ku ko sàmmale war ma ji moo tax. Euh, bi daayira safinatu Aman juddo en 1997 lëkkale seeti sañ Tuubaa yi di dox ba sëñ Saaliwu dénkoon leen lépp loo xamante ne bii euh, war la ci dëkk bi Safinatoul Aman di ko ko saytul loolu nag ku ne xam na ne doorewut ci Safinatoul Aman ndax sëñ Abdou Lahad moo ko njëkk a def bataaxalam boobu mu bindoon doomi sëñ Tuubaa yi jamono wante ak moom sëñ Saaliw ak sëñ Abdou Xaadir sëñ Murtala sëñ Soñ bu siñe ca mu wut ay tere liste ko ne yii moom bëggatut ku ne Touba di ko jëfandikoo yii tamit bëggatut ku ne Touba ngay dund loolu te loolu boo ko xoolee lépp ci lépp sax laay wax lu yàlla tere la yonent bi tere ko Sëñ tuubaa tere ko diine tere ko lislaam tere ko yooyee la safinut amaan nag taxaw di ko di ko di di ko di ko liggéey ginnaaw sëñ saaliwu tamit El Hadji Baara yàlla suñu borom dolli leeram moom it continuer ci ci loola dénkaat ko safnal aman ba ci sëñ sidil muxtaar ba tey jii sëñ sëñ muntaxaa bi muy yeesalaat tere yooyu na ko sëñ abdulaat binde woon la ko bindewaat waaye yokkaat ca yu bari ndax àdduna day dox woo njaboot ak sëñ Tuubaa gi ak seex yi waaye tamit autorités yi fekke ko te mu ci tuddee président de la république son excellence Macky Sall euh, mel na ni ñëpp teew nañ mu mu mu delloowaat tamit ndigal li yokkaat tamit confiance bi safinatu Amane dénkaat ko ko mu war koo saytu ci biir dëkk bépp fépp titre foncier bi am loolu moom mooy taxawaayu Safina amoon boobu ba léegi nag sëñ Modou Lo taxaw temm ci membre yi organiser ko ay brigade ñu ci liggéey liggéey bu am solo di laabire taalibe yi lépp luñ gis ne lii sëriñ bi bëgg ko ci dëkk bi ñu ñu ci ay teggin ak maslaa ba loolu day yi ci ban anam lañ leen di tànnee ñi nga xam ñoo Safinatul Aman ndax wàllum kaaraange lañ wax rawatina dëkk sell bi di Touba waaw membre yi ni leen di tànde moom mooy liggéey bi daanaka euh, li ci ëpp mooy nit ki mooy coobarewu ngir bëgg a bokk ci liggéey bi bu dikkee danañ ko xamal liggéey bi li ko tax a jóg li ko tax a jóg nag moom mooy la ci jiitu mooy ki wara a ki ki ñuy tànn mooy nit lay doon du doon ku xelam matut du doon ab dof nit ku nit la nit njaay lay doon euh, ba ca des tamit euh, danañ ko saytu ba xam kii war naa doon membre Safinatoul Aman wala déet enquête dana waaw enquête ci lépp ci point yu bari danañ ko def enquête ba ba xam ne yi tax mu mën a doon membre Safinatoul Aman réunir na ñu door koo jël mm-hmm. buñ ko jëlee nag xool ci biir antenne boobu fan la mane ñu féetale ko foofu mm-hmm. waaye secteurs yi bari na mm-hmm. doonu ne ku ñëw rek dañ lay bàyyi fu la neex rek dem ku ci ne ci sa niveau ci leen lay xool la nga mane ak fa sa niveau toll ñu jox la liggéey bi nga Euh, màggalu Touba euh, jamono ji nit ñi fa nekk la ñuy bàyyeekoo di ñëw xëy na am na ay tere yoo xam ne ñenn ñi euh, nga xam ne dañuy jóge ci yeneen dëkk yi xamuñ ko ne dëkk yi dañ koy bañ yooyu buñ la ko doon laaj lan lay doon waa tere yooyu nag moom comme ni ma la ko waxee woon rek sëñ Abdou moo ko njëkk a bind muy arrêté boo xam ne mu ko defee état bi mu jameloon te président Abdou Diouf jiite woon ko lépp lu lu jar ci wàllu këyit def na ko état du Sénégal reconnaître tere yooyu ba képp kuy dégg ku ko def yoon mën a dal ci sa kaw loolu nag la ci jiitu mooy ni ma la ko waxee woon léegi ku ne xam na ne euh, loi du Sénégal terewut tux poon ak cigarette Touba dañ ko fi bañ euh, Sénégal tamit yeneen dëkk yi jigéen ñi lu leen neex la ñuy sol Touba tamit dañ fi bañ sol gu gàtt sol gu dëppootik diine dañ fi dañ fiy bañ tamit lépp lu jëm ci wàllu folklore yëngu-yëngu yoo xam ne du yëngu-yënguy diine lu mel ni tëgg ak fecc ak musique ak yooyu dañ ko fi tere dañ fiy tere tamit euh, lu mel ni naan am ñol euh, wala nga koy jaay yooyu yëpp dañ ko fi tere ak yu baree baree bari yoo xamante ne bi sëñ Muntaxa bi mu ñëwee toppaat ko am na yum ci dolli ndax bi sëñ Muntaxa ñëwee dolli na ci xeetu mees euh, xeet dolli na ci xeesal dolli na ci jabarkat yi ne ci dëkk bi dolli na ci am kër di ko luye te ñu ngi koy luye sàmmoon teewuñoo war may dëkk bi yooyu yëpp tiwuma kayit bi fii waaye yii moom daanaka jàpp naa ko moom la sëriñ bi di tere ak li nga xamante ni bii da koo tënk lépp lu dëppawut ak diine daal bu sañoon képp ku ne ci dëkk bi da nga ko moytu ndax dëkk bi dëkkab diine la ki ko sanc muy Cheikhul Khadim euh, biñ ko noppee ba diñ ko noppee gis ci yàlla rek la nekkoon ba ba taxoon mu sanc dëkk bi ngir képp ku fi ñëw maanaam man fee rawale sa diine kon nag képp ku fi ñëw bëgg a jëfe leneen lu dul diine loolu nag day aaja woo ñu laabire la ci teggin wax la ne la lii bokkul ci dëkk bi boo loo nag maanaam bu ci jëflante mun te ñàkk am na xeeti jëflante bu ñu war a jëflante ak yow. jëm nga xam ne dañuy yor salon wala pose xef yooyu dañ ko fi aaye wala déet. waaw yooyu tamit aaye nañ ko fi mooy lépp lu jëm ci wàllu mees wàllu yokk. wala nga ubbi kër goo këru liggéeyukaay goo xam ne day yokkal nit ñi mees wala yooyu yooyu tamit ci liñ ci ci liñ fi tere ci la bokk yooyu bi sëñ Muntaxa ñëwee tamit ci lim ci doll ci la bokk lépp loo xamante ni bi daal suñu borom ni mu bindee doomu aadama bi euh, daal lépp loo xamante ni bi gis nañ ne euh, yaa ngay liggéey lu yokk ci ni suñu borom bindee doomu aadama loolu nag ci jigéen ñi la ëppee muy mees meeg pose ay xef pose ay weeg yooyu yëpp sëñ Muntaxa da ko boole ci tere yu mujj yi nga xamante nekkutoon ci bi koy sëñ Abdou Lahad di lim dee góor ñi lan ak lan lañ leen di waaw li ma la wax rek góor ñi moom ni ma la ko waxee woon léegi rek lépp loo xamante ni diine tere na ko lislaam tere na ko rek dañ la koy tere góor ñi nag bu dee gone yi li ëpp ci li ñuy def te sëriñ bi bëgg ko mooy football football bi dañoo gis ne dafa dem ba yàq njàngam dongo yi ndax tuubaa booy seet quatre dix neuf pour cent ci jàngukaay yi ay daara la te it gone bëgg na po moo xamante ne bii buñ fi autorisé football rek dana am lu bari lu mu yàq moo tax ba muy bind yi tere yi da caa boole football kon ndaw yi ak boroom kër yi tamit ñu bàyyi xel ci ne loolu da ciy baax beneen ba ca des tamit borom kër yi tamit ku ci nekk war naa doon farata ci nga xool njaboot gi nga xamante ñoom nga njaboote nga leen di soññ xam ne tamit yaa leen féete fi nga xamante ni bii mooy li sëriñ bi waroon a wax ci ñoom déglu leen ko képp ku am njaboot yaa leen waroon a dégal di leen tere laata ñuy génn di dajeeg safinatu aman kon boroom kër bu ne bu amee doom wala njaboot wala jarbaat war na leen saytu ba bu ñuy dem xam fi ñuy dem bu ñuy dem tamit ñu xool ba xam melokaan wi ñu am dëppoon ak melokaanu dëkk bi loolu tamit sëriñ bi mu ngi ciy sàkku njaboot gi bu baax seen bureau bu yàggul euh, dara euh, yi nga wax ni ku ko sàmmontewul lan mooy daan yi nga xam ne moo ko ci mën a fekk. waa ñu ngi sant yàlla ci bureau bi ñu ubbi nga xam ne Safinatoul Aman liggéey nañ daanaka ñaar fukki at ak ñeent mosu ñoo am seen kër ak bopp kër soxna Astou Gawane lañ amoon ci toogaayu sëñ Muntaxa bii nag lañ am suñ siège boo xam ne R plus 1 la ñu équipé ko loolu tamit ñu ngi ci sant yàlla. Eh, ubbi nañ ko ci ndigalal sëñ Muntaxa waaye ci teewu ci teewaayu sëñ mun Muntaxa ak kilifa yu bari yu ne ci dëkk bi loole tamit ñu ngi ci sant yàlla bu baax dana gën a yombal tamit suñu liggéey ndax ku ne xam na ne eh, Safinatoul Amane bu amee siège danañ fa mën a daje danañ fa mën a lijjanti liñ war a lijjanteeg askan wi te benn jafe du am loolu nag eh, nañ xam ne Safinatoul Amane tamit donte am na siis yorut kaso bi muy tëj kenn yoru tamit ab giri euh, barab bi suñu kër la goo xam ne nii lañ war a liggéey yëpp dañ ko fay def ndax euh, liggéey bi ni ma la ko waxee dafa bari ay pàcc brigade bu ne war naa fa am barabu boppam am na salle réunion boo xam ni sëñ bi bu soxlaa membre yi ak lépp lu ñu war a traité danañ ko fa def ku ne xam ne tamit am Aman seen ab liggéey jubale famille yi da cee bokk ndax liste bi keroog maa ngi koy lim ren am na ñaar fukki famille yoo xamante ne bii ak réeroo amoon na seen diggante ba police naroon cee amu yoon wala tribunal ginnaaw yàlla safinut amoon moo ko liggéenti ba loolu lépp àggut police wala gendarmerie yooyu yëpp nag bu ñu amee suñu barab bopp équipé ko yor suñuy jumtukaay dana tax niñ war a liggéey yëpp ñu ñu liggéey ko. kon daal mu mel mën naa leeral ñiy def amalgam bërëb boobu du bërëb bu ñuy jàpp ni di fa denc. léeg du bërëb bu ñuy jàpp ni di fa denc suñ bërëb bopp la bu ñuy daje. di xool nan la ñuy mën a fexe ba jekku liggéey bi ni ko ni ñu ko si Sëriñ Muntaxa sante waaye am na jàpp moom ak tëjëka yóbbu police moom nañ xam ne police ak gendarmerie ñoo koy def ñoom it ñi ngi liggéey bu baax ci collaboration boo xamante ni rafet na police ak gendarmerie tamit jox nañ cër Sëriñ Tuubaa ndax ñi ngi liggéey liggéey boo xamante ni sax loi Sénégal nangu na tux poon wala sol sollu gàtt sa boo demee ci yeneen dëkk yi waaye police mu ngi ciy jàppale Sëriñ Tuubaa ci autonomie bu Touba am ak wormaal sañ Touba ba képp ku ko fi def ñu man laa laabire bu bu saytu ajee ci yow ñu saytu la. kon police. moom moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy yor gris mooy yor jàpp di def ay procès verbaux di yóbbu tribunal mais ñun moom yooyu duñ ko def. waaye waaye ñun nag liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey eh, képp koo xam ne dem nga ba féeteerlu buñ la jàppee. dañuy maslaak waxtaan ak yow bu fekkee nangu nga liñ lay wax te doo ko defati ñu yewi la bu fekkee tamit am na ak dëgër bopp goo ci wane euh, yoon moom mi ngi fi te yoon buñ ko waxee mooy police wala gendarmerie bu ci amande euh, ajo ñu amande la euh, teg lab daan boo xam ne ëllëg boo ko bëggee defaat bu sa xel demee ci daan yin la tegoon doo ko defaat loolu moom mooy jubluwaay bi. yéen da ngeen koy bàyyee. danañ amande léeg-léeg danañ amande ndax am na ci jigéen ñoo xam ni ñoo leen di amandal suñu bopp yam yamul fenn kay moom yamul fenn yamul fenn am na ci sax ñun ci suñu ci suñu liggéey sax am na ci kër yoo xamante ni bi sax dañ koy nangu ren booy xool suñu bilan ren nangu nañ juróom benn kër yoo xamante ne euh, dañuy ne ci dëkk bi te duñ nangoo sàmmoon teg li sëñ bi bëgg ci dëkk bi te loolu sëñ Sidil Muxtaar moo njëkk a joxe woon dogal boobu képp ku nekk Touba yor fi kër loo mën a def ca kër ga te nangu te nanguwoo sàmmonteeg eh, ndigali sëriñ bi ci dëkk bi nañ nangu kër ga pen boo fa mënoon def loo fa mënoon a investir ñu delloo la ko te suuf si moom nga bàyyee ko sëñ Touba loolu tamit liñ ci jotoon nangu ci ay kër daanaka booy xool mat na ñaar fukk ndax eh, mille vingt bi rek nangu nañ ci juróom benn kër kër yooyu tamit buñ ko nangoo ñu leeral ne tamit Euh, fiñ koy niñ koy def dafa am solo sëñ bi dafa waxoon kër yi buñ ko nangoo ñu jébbal ko ñi nga xam ne ñooy jàng jàngalekatu alxuraan yi nga xam ne Touba euh, am na kër yoo xam ne leneen lañ fa doon def loo xam ne dëpp wut ak diine loi Sénégal sax nangu ko woon waaye ñooñu bi ñu fetteerloo ñu jox leen premier avertissement jox leen ñaareelu avertissement ñu bañ kër yooyu dañ ko nangu jox fa nag jox ko nag ay jàngalekatu alxuraan ñoo fay jàngale loolu moom mooy. ci seen wàllug liggéey lan moo ci ëpp doole ci li ngeen di euh, jàpp ak yu mel noonu. waa ren moom euh, bu ñu waxee dëgg rek sant nañ yàlla bu baax ndax ren li ñu jàpp dafa wàññeeku ndax booy xool année yi passé liñ doon jàpp ren daanaka 30 pour cent yi lañ jàpp wala 35 pour cent. nit ñi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi tàmbali dégg message bi nit ñi tamit macha allah ñi ngi dégg ndigalal sëñ bi nit ñi tamit ñi ngi xam. njariñ li nekk ci li leen di sëñ bi di tere ak lim leen di digal kon loolu ñun sant nañ ci yàlla ba tey bi ñuy inauguré suñu siège bi ñi fa ñëwoon ñëpp li leen yéem mooy ren ñun liñ présenté ne moom lañ jàpp dafa néew te loolu nag euh, dañ ciy sant sëñ Muntaxa ñaanal ko ci ndax liggéey boobu ñun jàpp na ne moo ko def ndax communication bi mu def ak yitte jum jox liggéey bi ba léegi askan wi nangu li leen sëñ bi di tere loolu ñun duñ ko sante kenn ginnaaw buñ ci sante yàlla sëñ Muntaxa lañ ciy sant ci jëfam ak taxawaayam ci ci Safinatoul Aman catul euh, waxtaan bi est-ce que yéen xalaat ngeen dem ba nga xam ne am ay sart yu bëri yoo xam ne dina tënk ndax léeg-léeg euh, bu dee wàllum poon xëy na kuñ ci jàpp mën nañ leen mën ngeen leen jàpp mais ñu bàyyiwaat la ci bugg lu gaaw. waaw poon moom euh, buñ la jàppee pon kenn du ci tëj kaso ak col yu gàtt ak yooyu waaye laabiire la rek ak jox jox la avertissement ndax nit ki nga jàpp benn yoon. kooku moom daanaka am na mille chance nga bàyyi ko mu dem waaye liñ mënta nangu ñu jàpp la benn yoon bàyyi la jàppaat la jàppaat la loolu moom maanaam faw dañuy xool ay pexe yoo xamante ne bi ñu jëflante yow ndax dañuy xam ne kii yow da ngaa feetu naroo koo bàyyi waaye nag néewaanu ñu jàpp nit benn yoon rek am amande bu ñu ko def boo gis ñi amande mooy ñi nga xamante ni bi dañoo bëgg dëkk ci dëkk bi te mu leer na leen ñoom fas yéene wuñoo ànd ak sëriñ bi ci li mu digle fas yéene si ànd ak sëriñ ci li mu tere loolu mooy jafe-jafe bi. lan ngay laabiré taalibe yi nga xam ne ñoo war a ñëw ci màggal gi ak ñu sàmmonteeg euh, li dëkk bi bañ. waaw lañ ci lañ ci lañ daa liñ daa digle rek at mu nekk ñu ngi ñaan màggal gi ñu fekk ko ci jàmm te tal ko te li ñu ci yéene suñu borom defal ñu ci lu kawe suñu jot sëriñ bi nangul na ko liñ ci daa wax rek moom la ñuy wax ñi màggal si nañ xam ne Touba dafa am lu ñu fi bëgg am lu ñu fi bañ Touba dafa am règlement intérieur. tuubaa ku fi ñëw tamit war ngaa sàmmoon sàmmoonteeg euh, li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ndax tuubaa du dëkk kër la Touba génn kër la benn titre foncier la kon kii ñëw tuubaa na xam bu baax li sëñ bi bëgg mu waajal loola ba génnaat Touba bu ko munta bàyyi mu bàyyi ba génnaat Touba doon koo def waaye ñiy màggal si daal bu fekkee bëgg nañoo ñëw tuubaa yóbbaale ab yool bu ñëwee lépp lu sëriñ bi bañ ci dëkk bi nañ ko teet mooy li ma ko waxee woon rek xeetu col yeeg xeetu tëgg meeg xeetu pon meeg xeetu jaxasoo gi nga xamante góor ak jigéen sëñ bi bañ ren nag dinaa ci profité waxaale mbas mi nga xamante ne bii am na te sëñ Muntaxa ci ñu sàmmanteek moom waaye tamit digle ci ñu déglu tamit way kër docteur yi ci li ñuy sàmmante loole tamit ñu profité waxaale ci kuy ñëw eh, ndax xam ne masque moom lu sëriñ bi digle la ci ñu koy takk ak yenn mesure barrière yi ak cet gi loolu lépp ngir moytu mbas mi loolu tamit ñi ngi koy ñi ngi ci ñi ngi koy waxaale képp koo xamante ne bi yaa ngi waaj ngir ngir ñëw Tuuba mm-hmm. mm-hmm. koy euh, sant baax di ko gërëm mu nekkoon Serigne Mouride Mbaye mi nga xam ne rek moom la ñu dénk lu jëm ci wàllu ko jokko gi ci kuréel gi ñuy wax euh, Safinatul Aman euh, dégg ngeen ponk yi nga xam ne waxtaan nañ ko lépp rek ñu jëmale ko ci waajtaayu màggal gi ak taxawaay bi nga xam ne fas yéene nañ ko ci amee ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ci woyof gi mu am ngir ànd ak ñun ci jotaay bi sant baax Serigne Daouda mi nekkoon ci caméra beeg soxna Asile di leen jox daje incha allah beneen jotaay jërë ngeen jëf